jaajëfal nañ leen suñu mbokk internet yu 5M TV Sénégal dal leen jàmm ci seen chaîne bile Oumath Diagne di xam xamle ni moom euh, njiitu réew mi Macky Sall nag moom la mu bëggoon rek am na ko ndax lii daal rek la bëggoon jël rek woy takk der yi rawatina nak ñi nga xam ne ñoom ñooy wallu yoon rek moom di ko rek daal di jox ak Ousmane Sonko ni mu taxawee ak moom ndax loolee la daal di wane ndax bëggoon na ko rek éliminer génnee ko ci mbir mi moo tax fi mu nekk nii nag moom temb waaye ñun tamit nañu taxaw temb ndax duñ ko bàyyee noonu euh, muy daal di rek sacrifier suñu leader bile. ñu daal di rek àddu ci mbiru Ousmane Sonko moom leader bu parti Pastef bile ginnaaw nag délai bi nga xam ni tegoon nañ ko ci ndoddam ci juróom-benni fan moom nag mu mel ni sax nag lañ koy toppee bokk na ci wàllu diffamation kaddu yu mu yëkkati rek daal di koy tekk ci kaw kile di Mame ndax loolee sax moo ko daal di nag mu am juróom-benni kaso yoo xam ne du ko daal di tëdd ak tamit lu toll ci ñaar téeméeri million yoo xam ni euh, moom la war a jébbal kile di jëwriñ bi ñu dénk wàllu tourisme bi di Mame Mbaye Niang ca verdict boobee sax mu mel ni nag partisan yu maire bi ak candidat bi nga xam ne rek déclarer woon na ko ci ak élection présidentielle yi mu mel ni nag bu ñu waxee rek jëm ci article 30 bu code électoral bi loolee fësal na ni rek moom du bokk sax nag waaye mu mel ni bile nag dogal ngir rek ñu mën koo yóbbu foofee ci cour d'appel ci juróom-ñetti fan ci weeru mai bile rek ñu génn avocat opposant yi di Ousmane sonk ñoom rek daal dinañuy saisir cour suprême ginnaaw bu ñu sukkandikoo ci suñu naataango yi lee sax di les échos ñoom ñu ñu xamal bile xibaar ñu ngi wax ni défense bi moom topp na rek cour de cassation yi ndekeen di démb ngir mën a xam nag client wum fan lay mujjee ndax am liberté provisoire définitive wala loole sax nag dinañ xool rek nañ lañ koy daal di wuyoo. parti les patriotes bu Pastef ñoom nag ña ngay xamal ni rawatina ñu féete ca section communale bu Pastef Touba ni dinañu amal ab assemblée générale nag ci dimanche bile fukki fan ak ñeent ci weeru mai ci atum 2023 ci bu ñeenti waxtu jotee ca ngoon lay daal di doon nag ña ngi koy amal foofee ca seen daluwaay ca Pastef Touba lañ fay wax. waxtaane nag ginnaaw rek ba ñuy dajeek taskatu xibaar yi dana bokk ca nag lu jëm ci nag li war a am ci fukki fa ak juróom benn ci weeru mai muy procès bi war a am ci diggante Adji Sarr ak Ousmane Sonko loole danañ ko fa waxtaane ak itam lu jëm ci tolluwaayu parti bile